salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Rafah TV am nañu mbégte ànd ak yéen di leen nuy bu baax fu ngeen mën di nekk ci biir meek biti réew euh, tey ji nag euh, ñu am mbégte lool toog ak euh, Serigne Gana Messere Makhtar mu nekk koo xam ne ràññee nañu ko lool ci liggéey bu solo bi nga xam ne moom la def tey ñu bëgg itam plateau spécial lépp rek ñu daal di koy jam jëmale ci nga xam ne rek moo di Serigne Fallou Mbacké borom Kazu Rajab waaye waxtaan bu solo boo xam ne fas yéene nañ ko seq ak moom laataa loolu Serigne ganna ginnaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci Rafah TV TV. Euh, aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokk yi nii seetaan fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak ziar beeg ñaan gi Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal ko mbooleem njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ak mbooleem kilifa diine yi ak mbooleem jullit yi. jërëjëf euh, sëñ Gana nuyoo bi am na solo ñu ngi lay sant baax di la gërëm euh, ñu bëggoon a tàmbali ci euh, Serigne fàllu Mbacké boo ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Fallou lan nga ñu ci dikkalal. waaw jërëjëf mm, Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Cheikhul Khadim di ko xam ne. ci njabootu sëriñ Touba bokk feeñ ci askan wu sel wu tedd muy askanu mbusoo bi ndax way juróom soxna awa buso maam moom mooy ki nga xam ne moom it boo toppee càllalaam day dellu ca euh, sayidatuna Fatima bu fekkee ne xam nga silsila bi tax sëriñ bu soobe ak ji aju ca yooyu yëpp soxna Awa Bousso moomu nga xam ne ku am taxawaay la ku ràññeeku ci jëfam sëriñ bi gërëm ko ay yoon yoon mu feeñ ci melokaanam lu nekk mooy woy juróom Cheikhul Khadim di woy juróom mu feeñe Daaru Salaam aljuma ci xëytel weer wii di rajab ñu di ko wax kazu te mooy ñaar fukk juróom-ñaar keef gi ñaar fukk la racine gi di juróom-ñaar muy kazu di ñaar fukk juróom-ñaar la feeñ ci daaru salaam loolu am na ko ko wax wax ne caama wasasin la feeñ fa tuuba am na ñu naan daaru salaam la booba waaw ah, ca moo daaru salaam la gane àdduna am ca mooma at la mbër ma génn daaru di sanc tuuba ñëpp yi waaru day mel ni moo dajeeg bi sëñ bi di sanc yi tuuba nga xam ne mel ni mbir la nga xam ne kasu rajab gi it gis nga yim dajeel ñuy al isra wal wal muy koo xam ne la ko Cheikh Ibrahima Diop al Machar doon wax dafa sosoo ci diggante jant ak weer moom sëñ Fallou muy jant bi mooy Cheikhul Khadim weer bi mooy soxna aw laxata na nachata min shamsin wa min qamarin fa sirta baxaran min al anwaari tasdaxiru sosoo ci jant ak weer jant bi mooy xaadim rasul weer bi mooy soxna aw busu yow nga mujj na di géej mbambulaan loolu sëñ Moussa Ka loolu la way allahu dul fadlul azim ku mu jox ngëneel déefile yéem faadilu mooy fadlul xamim turóom wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsun wa xamar mbakkeeg bu soobee duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bambatee ci xarnu bi nga xam ne kon euh, mu feeñ ci daaru salaam ñu wax 1888 ndax mooy tolloog sañ ci Touba euh, ci wayjuru sell yooyu ma la wax muy Cheikhul Khadim soxna Awa Bousso mu baax mi nga xam ne moom it kenn ku nekk xàmmee na ko nga xam ne la sëñ Moussa woon lay jaay di xayru moxsinaat jigéen ji ji ji gën ci rafetal ak jekkal muy soxna Awa Bousso loolu daal lenn la ci luñ mën a tënk ci man tam ne ko jàngal Serigne Fallou. waaw moom nag xam nga Serigne bi moo ko dalal jàng. Serigne Touba moo ko dalalal boppam fii ci jàng kër sëñ Chouaïbou fi ñuy wax Daaru Rahman ñu ko Daaru Naar Touba la dale jàng sëñ boo ko fii kër sëñ Chouaïbou bu nekk fii la leen dalale dem ci géej gi bi muy dem Mbakke Baari yóbbaale na leen dem nag ci ci tukki bi bàyyi leen ak maam Thierno waaye sëñ Daam Abdourahman Lo moo ko jàngal alxuraan boo demee ci euh, téere Nuzhatu Nadim Abdourahman al Alawi yaakaar naa loolu la wax nga xam ne ci sëñ Daam Abdourahman Lo la jànge alxuraanul karim maam Thierno jàngal ko xam-xam. jàng na it li ñuy tuddee ilmu tafsir ci sëñ maam borom saam maam Mor Diarra jàng sëñ Mbacke Bousso. ndax jot na génn jàngi. waaw bi sëñ bi ñëwee daal dem na gànnaar waaye sëñ sëñ Fallou moom li ëpp ci lim jàng lépp te gànnaar yi sëñ ba la fa nekkaloon waaye daal fii la jàngee moom ndax li mu wax leer na euh, maag Cheikh Moustapha suñ mag gi suñ bàyyi Thierno danoo jàngal ba ne ar mu yarnu ba ne nër kon day mel ni moom fii la jàngee maanaam sëñ Fallou sëñ. Euh, ndaam Abdourahman Lo moo ko jàngal alxuraan maam Thierno moo ko jàngal xam-xam ilmu tafsir jàng na ko ci maam borom Sam muy maam Mor jaara jàng yi sëriñ euh, Mbacke Bousso nga xam ne yooyu daal béréb la yoo xam ne sëñ Fallou fi la jaar jàng. mu nekk lu am solo wax nga ci silsila bi lan moo tax ñu naan sëñ Fallou maamam sërif la. waaw ah, mooy li ma la wax léegi ndax fi ne boo toppoon si bi xam nga tey maam as euh, soxna Awa Bousso boo ko toppee. mook soxna jaara gis nga lam doon ci moom nday jaa baayam baayam mooy nijaayam nga xam ne kon soxna awa sëñ bu soobe sëñ bu soobeeg soxna jaara ñoo bokk lépp te boo toppee silsile bii ma la wax nii seen càllale boo ko toppee da lay yóbbu ba ca fatimatu bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam ne boo toppee maami maamam yëpp day dellu ba ci yonente bi alayhi salatu salaam moo tax moom sharif la ci umman wa abba nag maanaam ci ndey ak ci baay moom shérif la ci mhm. waaw shérif la ci ndeyam shérif mhm. la ci ci baayam. mu mel ni tur wi tamit rek am na lu wone. waaw tur moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko tuddee ndax bi mu feeñee sëñ ko tuddee yonent bi ñu tuddee ko Muhammadul Fadil nga xam ne la lañ ko tuddee ci turam ndax sëñ Tuubaa njabootam yonent bi la la la leen tuddee mhm. waaye moom yonent bi la ko tuddee sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ngëneel li da ciy feeñ Muhammadul Fadil nga xam ne fadlullahi la ngëneelul yàlla te loolu feeñ na ci ay dox yi ni dem feeñ ci ay melam moom Serigne Fallou ban relation la amoon ak ñi nga xam ne moom la bokkal euh, Serigne Touba. waa xam nga sëñ Fallou dafa yaatu melo. ndax dafa am koo xam ne bi mu koy tagg dane ko yabunul xadimi la si yurdoxa bi fadilina maanaa la fadluka la unsa wala dakar sabaxta jilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadaili lam tusol biha fikaru dane ko yow sëñ Fallou doomi sëñ Tuubaa ji wax sëñ Fallou am na ngëneel yoo xam ne kenn mënu ko takk góor amu ko jigéen amu ko jiitu nga sa kem yëpp waaye yaa ngi leen jiitoo teggin ak jikko yu rafet nga xam ne makaarimul axlaax la sëñ Fallu amee ñëpp loolu ni koy xamee diggante waaw diggante ma njaboot sëñ Tuubaa gi boo ko tàmbalee ci Cheikh Mamadul Moustapha sama mag ju baax ji rek lay wax moom la daan wax bu yaatu te loolu juróom benn weer aki fan lañ magante bokkandoo ñekk nekk gànnaar bokkandoo nañ nekk njaareem sëñ Tuubaa bokkandoo nañ nekk Ceyeen kere bi sëñ Tuubaa di woote di won ne du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma mag kenn sëñ Mourou Sow la woon ak Cheikh Mouhamadou Fadel ak sëñ Mor Roqay Bousso ak Cheikh Massamba Mbacké boo xoolee ci biir relation bi cër bi mu ko joxoon sama mag ju baax ji rek la daan wax te doy na ci tey boo xoolee sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké Fadilu sëñ muy sëñ Mourou Bousso Dieng sëñ Mourou Moustapha lañ ko tuddee sëñ Mourou Moustapha ko yar sëñ def ci moom moom lépp boo demee ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara sëñ Baara diggante ak moom noonu la mel ba sëñ Baara sëñ fallu day jël xalima di ko tagg laa laa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil ilmi wal juudi aw fi diini wa nasabi wan ko ne ko kenn jotu la ci juddu kenn jotu la ci askan kenn jotu ci jikko kenn jotu la ci tab waaye sëñ fallu yit ba ko sëñ Baara yi delloo it dana ko yow sa baay mooy kaashiful kurab maanaam njàqare bu ma saa am sa baay koy wuññi yow it yaa donn sa baay ci wuññi loola nga xam ne diggante boobu ni mel tey ji boo xoolee Cheikh Mouhamadou Lamine Baara dem na ba doon xalifa Cheikhul Khadim loolu it te sëñ Mouhamadou Lamine Baara mel tudd loolu diggante bu bu bu rafet lay mel noonu la mel diggante mag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga gis nañu meloon ci ak taxawu mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp Cheikh Amadou Fadal dafa taxaw woon ci ñoom taxaweenu mboolem ku ko mag mu jox la ab cër mboolem ku mag mu yërëm la commencé mu def la ni boppam. nga xam ne jikko ju rafet la ànde ak ñëpp tey ji loolu tax na foo dugg ci biir ëtti kër Serigne Touba yi fa ay Cheikh Amadou Fadal waaye foo dugg ci biir kër Serigne Serigne Fallou it fekk fa. ay turandoo loolu day feeñ ba ci ba ci mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëñ Touba fi ne boo demee da nga fa fekk sëñ Maam Mor Diarra mi maam Maam Mor Cham da nga fa fekk Cheikh Ibrahima Fall da nga fa fekk euh, sëñ Modou Massamba Diop Sam da nga fa fekk sëñ Modou Xabbaan ñooñu ñëpp ci ci mag dañ fekk sëñ Ahmadou Sakhir Mbay sëñ Ahmadou Kabir noonu mu mel it da nga da nga fekk ci biir këram da nga fa fekk sëñ Cheikh Awa Balla nga xam ne yaa xafaara durub loolu li muy tegtale mooy sëñ Fallou dafa nekkoon koo xam ne ku ubbeeku la koo xam ne ku yaatu la borom jikko ju rafet la woon joo xam ne dafa xajoo woon ñëpp waaye nekkoon ak raxma nga xam ne yërmande joo xam ne dafa matale woon ñëpp moom Serigne Fallou. ndax ubbeeku googu moo waral digganteem ak yeneen tarixa yi diggante ba rataxoon lool. waaw loolu xam nga xam nga li taxit mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsi maanaam kenn ci yéen gëm gim gëm yàlla du mat ndare lim bëggal boppam da koy bëggal mbokkam sëñ Fallou ñëpp la yéene woon jàmm ñëpp la bëggaloon jam tey ji boo demoon ci mboolem turuqu suufi yi fi nekkoon noonu la amee boo demoon tey ca Tidiane yi noonu la amante woon relation ak ñi mu bokkaloon jamono ñooñu ñëpp noonu la meloon ak ñoom boo demoon ca Qadiriya loolu nga fay fekk boo demee ca mboolem ñaseen ya nga diggante ak El Hadj Ibrahima Niass ak yeneen loolu wane na relation bu rafet bi mu amoon moom ndax li tax relation bu rafet bi mu amoon mooy danañ wax ne maay Sénégal. waaw may Sénégal nga xam ne kon melo yooyu yëpp doxin wu leer loolu ñuy misaal ne daana wax ne maay Sénégal waaye misaal drapeau Sénégal nga xam ne ñetti ñetti couleur la verte jaune mm-hmm. rouge nga xam daana wax du ma weer kenn mm-hmm. kon mooy verte waaye mooy du ma weer kenn son mm-hmm. bi mu ne du ma sonal kenn rouge bi mu ne du ma rusloo kenn waaw ku dul weer kenn doo sonal kenn doo rusloo kenn faaw nit ñi daw jëm jëm jëm si mooy Sénégal waaw moo tax sëñ Fallou noonu la meloon nga xam ne du xotti saatir mm-hmm. du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal Fallou Ghaniyu la. li mu nekkoon Sénégal moo taxoon am na benn président bu fi nekkoon Senghor digganteem ak Senghor bëggoon naa nga dellu si ci. waaw mooy xam nga mënees na ci xamee lu bari ndax xam nga Senghor moom si weneen wàll wi la bokkoon li ngay xamee ba tey sëñ Fallou nga xam ne même ñi nekkoon euh, nekkuñu woon ay julli sax dañoo fonkoon sëñ Fallou. ndax sëñ Fallou dafa dafa dafa am lu mu incarné woon mooy respecté doomu aadama xam doomu aadama lan mooy yitteem xamit moom ne yërmande la njariñ la xam nga sëñ Fallou njariñ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne alxalqu an yàllu la ahabuhum ilay anfaahum mbindee fii ñooy njabootu yàlla ki ci gënal yàlla mooy ki leen gën a jariñ sëñ Fallou danaan jariñ ñëpp si ngor kenn ku ne xam na ni meloon ci bëgg Serigne Fallou ak daw jëm si Serigne Fallou waaye Serigne Fallou soutenir na ko ci wet gu ne taxawoo ko ci lu ne garanté ko lu da ngay toog ba doyal te kenn du la gañe waaye kenn du la rey nga xam ne kenn coup d'état wu ko waaye kenn gañe wu ko moo toogal boppam ba ñax ko mu bàyyi kenn musu ko coup d'état te loolu sëñ Fallou ko waxoon ba mu ba mu ragalee pakk yene woon ci kanamam ak kàmb yàgg yëpp mu ne ko danaa la ko maasaleel dandaleel la pakk te doo gis loo ragal loolu buñ ko piis nañ ne ko jàkk waaw xam nga xam nga sëñ Fall dafa bari baatin mooy rek wane te loolu gis nga ni mu sare bu ko nañ ne ko jàkk si si nga gis président bu faatu boo xam ne même dañuy ubbi kees nit ñi di ko xool nit ñi ndax wax ju sar jooju nga xam ne ko li tax mu téye ko fi ne lépp lu muy relation sëñ Fallu bépp ak si weesuwul taxaw gim taxaw ci mbirum jumaa ji ak bëgg gim bëgg a liggéeyal Serigne Touba ku ca taxaw jàpp ci rek mu jàppale la loolu mu loolu rek mooy mooy taxawaayu euh, Serigne fan ñëpp xam ñooñu Senghor am na lu mu xam ndax doonu loon président simple nii rek waaye yàlla ni muy maye nit kii lay may kenn ndax dana may kii jay kii mayoon na Senghor loo xam ne xam na mbirum biir kon xamoon na moom kan mooy Serigne Fallou Mbacké xam googu ma ko xamoon moo tax mosuloo gis benn yoon mu masa a jéem a benn minute pour jëmee ko ci Cheikh Mamadou Fadl ndax wan na ko ne ko kilifa sa kilifa la ci waahir ak ci baatin tey it mosu koo wax leen loo xam ne yitte boppam. am na am na ay dëkk yu bari yoo xam ne sëñ Fallou sanc na ko mën nga ci dellu si. waaw xam nga sëñ Fallou moom dundam gépp ci liggéeyal liggéeyal liggéeyal liggéeyal euh, Serigne Touba liggéeyal lislaam rek ci la ko def tey jii ba mu feeñee ne ci yitte ne ci kanam Serigne bi it taxawaay boobu tax na ba dëkk yu bari tey boo ko xoolee fekk sëñ Fallou euh, sanc ko. muy dëkk yoo xam ne tey ba léegi dëkk yaa ngi fi ndax ak njaboot a ngi fi di ko dundal dëkk yaa ngi fi nekk fi barkeel ba léegi te dëkk bu ci nekk it dafa am sabab bu taxoon euh, mu mu sanc ko sabab bi it weesuwuloon euh, liggéeyal ci rek euh, Serigne Touba sanculoon benn dëkk ngir bëgg ay dëkk wala mu sanc dëkk ngir nangam mu mel ni kon gis ngeen Ndindi Ndindi man nga ne bokk ci dëkk yi jëkk ndax Ndindi sëñ Touba moo joxoon ndigal sëñ fallu sëñ Modou Moustapha ak mag ñi ñu sanc sëñ Modou Moustapha sanc Ousnal Mahab muy Tindodi sëñ Fallou sanc Ndindi nga xam ne kon loolu sanc googu ci ndigalul Serigne Touba nga xam ne moom euh, Serigne Touba ko joxoon ndigal defe naa 1913 1913 du sori loolu mu sanc ko ci ndigalu Serigne bi ak Bugareel nga xam ne mooy moo ko sanc ak bépp ak maddina Mbooba ak Xayaan ak Touba Mirina ak Naylul Maram ak Aliya ak Touba Sourang ak Touba Bogo xam ne dëkk yu bare bare la te dëkk bu ci nekk li gën a yéeme bi mu koy sanc pas-pas bi mu am lim ciy liggéey day wax ne bu fekkee dara dana ci mooy liggéey sëñ Tuubaa bi na mel ni hmm? ah, maanaam bu mu sax waaw maanaam xoola googu dogu hmm. kon wan ne lu lu tax mu di ko defee rek liggéey dëkk bu mu mës a sanc rek hmm. liggéey sëriñ Tuubaa tax mu di ko sanc nga xam ne bu ca dara mooy naree mooy sëriñ bi na mel ni xorom bu ca bu ca dara sax kañ la fi eh, jot ci xilaafe gi nekkal fi sëriñ Tuubaa ak bi mu fi ñëwee ba nekkin la fi amee waaw ah, 1945 ndax Cheikh Moustapha 1945 la fi jóge sëñ fallu wutu ko ci 1945 booba day mel ni projet bi fi gën a rëy mooy jumaa ji jumaa ji sëñ Fallou ñëw engagé ndax booba jumaa ji Cheikh Moustapha géey na ko ba sori sëñ Fallou ñëw nag eggale jumaa ji ni ko sëñ bi bëggee woon ba mu noppee ci jumaa ji it ne ko fii lañ toll tollal la fi buñ ko weesoo weesal la ko loo jërut amut kon loolu ab junj bu yaatu te ji li tax jumaa ji ñu koy yokkaat ak lu ñu ko def sëñ Fallu junjoon na loolu fii lañ toll maanaam jamono boobu fii lañ toll tollale la fi waaye buñ ko weesoo weesal la ko loo jërut amut bokk na ci màggalu Touba moo ko indi Touba ndax màggal gi 1921 la sëñ bi joxe woon digal muy Telses di 1339 njaareem la jëkk a màggale ci Telsesin la àggale fii la ñu Bàmba jommale ci Bàmba Xaadimu Rasuul waaye sëñ Fallu indi màggal gi Touba wax nañ ko fii defee tey ji xoolal ni muy réussir effectivement bu toll ni màggalu Tuubaa nga xam ne amul effectivement bu ñu toll sëñ Fallu moo ko woote fii Tuubaa ngir murid di ñëw di fi daje si di ko dullal di ci sant sëriñ sant la sëriñ bi boroomam. loolu bokk ci muy réalité. nga xam ne yooyu def na ko yeneen yu baree bari yoo xam lu ci nekk sëñ Fallu def na ko taxawu nit ñi nekkoon koo xam ne li benn waykat di wax ne benn biir gi wax ne yablu xadimi la si mahalla saatuhu aatin yuraaji illa salla faaxatuhu mooy koo xam ne kenn mës a ñëw wàcc ci ëttam am yitte te fajaluloo sa yitte jooju nga xam ne ba ci biir dëkk bi sëñ Fallou am na ñoo xam da leen daan gàddu dépense ñoo xam dañuy sanc ci dëkk bi néew doole duñ ay seex doolu ñu ay sëriñ mbooloo du leen topp mu daan génne ab somm ci jamono yooye léegi leen mu xëy génne lu mat ñaar fukki junni ci jamono yooyu joxe ko nañ ko séddale ñooñu ñu ndax dëkk bi leen war a yor te moom moo fi nekk yërmal nga xam moo leen daan taxaw nekkoon koo xam ne taxawu dëkk bi gis nga melo yu nekk marché occas miiri armeel yi taxaw ci yeneen mel te sëñ Fallou bi muy def lii def jumaa ju mel nii moom ci ay baraag la dëkk. Mm-hmm. Marsoukass bëggoon naa nga dikk fi tuuti ndax nee nañ ñaanuk sëriñ Fallou moo fa nekk ndax mën ngaa dellu si ci loolu. waaw xam nga sëñ Fallou moom gis nga uh, Okaas ci ak ñaanam la mu joxe ndigalul ñu sanc ko mu nekk ab marché te yàlla dafa barkeelal Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne lépp lu mu a laal ba suñ bisub tey bii lépp lu mu a laal rek suñ borom def ci barke mm-hmm. loolu Euh, yàlla def lu mu laal noonu lay mel te noonu la taxawee ci ci ci ci ci liggéeyu dëkk bi taxaw ci fexe ba murit yi bennoo fexe ba taxaw ba yoon wi nosu fexe ba lépp doon benn doxin woo xam ne kilifa day jiitu ko war a topp ci ginnaawam topp ko loolu nekk aw doxin mm, projet bi gënoon a rëy nekk jumaa ji sëñ Fallu fexe ba ba ba taxaw jumaa ji defar ko ci melokaan woo xam nii lépp mi ngi génn ci liggéeyu taalibe yi ànd ak ñoom ci ay ndigal yoo xam dara wutewu ci ku yàlla mayoon la ci xeer baax moom Serigne Fallou waaw xam nga sëñ Fallou moom wet googu sax lu ñu bari gën a miin ci moom fekk moom euh, jikko ju rafet jëm làmboo sax moo gën a yéeme ci loolu ndax sëñ Fallou jikkoom ju yéeme du rafet moo tax loolu mel waaye borom mi xar baax la woon nga xam ne euh, feeñ na ci waxtu wu nekk ak dox yi nu nekk euh, waaw loolu waaw loolu loolu li koy xamee mooy lu bari la ndax lu mu mës a wax rek suñu borom def ko xam nga léegi-léeg nga dégg sax kuy jéem a contexte na taw mu taw du taw mu taw loolu moom loolu sëñ Fallu da koo def lu dul benn du ñaar Cheikh Mamadou Moustapha ñëw nañ moom ba tey di wax am ndox mu ne dem ci sama rakk ju baax Sëriñ Fadilu bu ñëwee di ko wax danaa leen da ngeen ndox mi jiitu leen wala di dund nettali na ma a na bis boo xam ne sëñ moo ko sëñ Fallu ñoo bokk aw buso mhm. moo ko yónni ab lettre jox ko ci Fallu na ko tool yi daa maral mhm. sëñ Fallu bind ab lettre jox ko na ko da dellu nee ba mu xëyee dem yàlla si taw taw bu bari mu ne nag na àndaat ak sëñ Modou ñëw sant si sëñ Fallou mm-hmm. bi mu ñëwee sëñ Fallou na ko na ko ndox mi kañ la ñëw mu ne ko tey mu ne ko Modou foo fanaan mu ne ko dama fanaan Touba mu ne ko lettre beeg ndox mi àndoon boo fanaanee woon biigil mu taw hmm? loolu da ciy jubóowun ak ak ak boromam moom Serigne Fallou hmm. loolu jagle la goo xam ne yàlla da ko mayoon Serigne Fallou bari na ko mas a ñëw ci Serigne Fallou boo ñëwee bu la laajee loolu nett nañ ko ñu bari nett nañ ko ba tey mm-hmm. mooy gis nga taalif suñu Cheikh Fall Baye góor boobu ba tawatee mm-hmm. ñu indi ko suñu Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fall mu indi ko suñu mu ñëwee suñu Fall du ko laaj lu la mu ne ko lu mu ne ko lu kenn xamul mu daal di wér wér ci saas mm-hmm. loolu mela la woo xam ne ay xar baax yoo xam lu ci nekk sëñ Fallou def na ko ci kenn ku nekk teg teg ci bët tax ñu naan borom na am mu am waaw na am mu am bu nee na taw mu taw bu nee du taw loolu loolu yàlla moo loolu xam nga li ñuy wax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ab jaam du dañ ci di ma jege lu ci ay naafila ak jëf yu baax ba mujj may noppam mi muy déggee di làmmiñam mi may waxee di di tànk mi may doxee te xar baax ku koy weddi rek karaama ku koy weddi xamoo dara hmm. parce que euh, li benn borom min xam-xam di wax ne karaama da ngay Seyduna Omar ibnul Xataab ba muy sànni leetaram ba yónnee ko ñu sànni ko ca Niil muy dex gi nekkoon Égypte at mu jot dañuy jël ab jàng wala jigéen ñu ñu ñu jot ñu mel ne luy tuuru keroog ba mu yónnee bataaxal bi ñu sànni ko ca biir la noppee yënguuti sariya ba ko Seydina Omar di xutba fa mu ne ak fa mu nekk ba mu jo jollee na mu déggee kaddu yàlla mooy jël ay karaama di ko jox waliyu pour nekk jumtukaayam bu dee ab yonent mu jox ko mu'jiza moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ay mu'jizaatam yonent fi jiitu woon népp xej ji yàlla yi day wut ay mbiri boppam tànn ko jox ko ci ñoom dañoo jubóog seen borom ndax nekkal gi nekkal yàlla jubóo gi jubóog seen borom looloo tax seen borom may leen ko moo tax sëñ Fallu jubóo woon ak boromam jubóo goo xam ne lépp lu mu mas a ñaan yàlla yàlla may na ko Cheikh Mamadou Fadal ñaata yoon lu lu jeex ak melo woo xam doxin dama lay wax ne fi ne lii ñuy contre nii nga xam ne am na koo xam ne da daan bañ na taw mu taw nee na mosu koo gëm ah, da koo bañoon moom contre ko nee na benn bis mu jógee ndakaaru def oto ay bagage jëm ci Touba oto bi daw ba yàgg yàlla si xiin di dënnu te yorut baas nee na mu jekki-jekki daal na man nag tey maa ngi ñaan sëñ Fallou moom contre naa sëñ Fallou moom waaye tey moom tey moom tey moom ngi ci bàyyi mbenn rek waaw mu sës ñaan sëñ Fallou <laughs> xam nga rek mhm. nee na yàlla si bu melexee dënn mu ne maa ngi ci bàyyi mbenn rek nee na ba ñëw indi otoom ba dugal gaaraasam dugg néegam yàlla si taw mu xëy na léegi day siyaare ji sëñ Fall soxna si moo ne xanaa da ngaa dajeeg ponkalum murit mu la waar maanaam mu ne ko waaye naa seeti sëñ Fall waaye neen bi mu ñëwee laajte ko fii ñu ne ko nga ndindi mu dem ndindi nee na mës a gis sëñ Fall sëñ koo gis ci zahir waaye nee na bi mu ko jubee rek sëñ Fall da ko joxal bi te ak seegul na ko del baas nawet baas waaj del baas nawet baas mhm. waa ji ne dal ci suuf na ko yaay borom ne taw mu taw du taw mu taw ndax ak séegul bay nuyoo mhm. te sëñ Fallu xam na ne ko yow mi moo baasutoon eh. mu ne ko del baas nawet baas maanaam jag lu nekk sëñ Fallu ñaata nit la wax lu dul jeex mhm. loo xam ne ku nekk wax na la ko nga tekki sa bët nit ñi di ko gis nga xam ne tey jii bari na ñoo xam ne boo leen waroon te jii seet leen laaj leen loolu sëñ Fallou ma sa wax dana ne sëñ Fallou ma waxoon nangam wala sëñ Fallou waxoon sama maam nangam wala sëñ Fallou waxoon sama baay nangam lu yàgg a yàgg loola dem loola dem ba ñëw loolu lu ko yàlla jagle jagleeloon la bu ko ñaanee mu am te tey jii waaw. ba ci turam yi juróom-ñaari sëñ Fallou bëri nañu koy jëfandikoo. waaw xaj na loolu loolu xam nga barkeelu nit ku baax moom lu ne da caa mën a juddoo ndax albarkatu lil mutabarikin gis nga barke yàlla bu barkeelee dara am na ñoo xam ne boo leen xoolee texe ba faw dutoo texee di am na ñoo xam ne boo dajee ñoom tàggoo ki bakkaar la la loolu te loolu maam Cheikh Mbaye waxoon na ko ba ko sëñ Fallou Gane jee itam andi woon ab yaat yooyu doo xam eh, lillahi xawmun ida xallu bi mansilati xalla na daa waxalal fi jawi anwaaru tashaaquhum kulla ardin yansiluuna biha ka annahum bi xayl ardi amtaaru waaye gis nga ba ko sëñ Fallu di tontu ida laqaytuhum aw kunta zairahum bi yumni faaraqa dahar aw saara id bi siyaari talqa kullu makramatin wa tantafi bi liqayl faqr wal aali am na ñoo xam ne rombante képp boo ko defee yàlla jégal la boo demee siyaare ji leen yàlla la waaye sëñ Fallu la nit ñi xër ci ndax ni mu def sëñ Tuubaa rek la ko nit ñi def ñëpp daw bëgg ko kenn ku nekk di barkeelu ci moom kenn ku nekk di di di di di ko sop nga xam ne ngëneelul yàlla loolu nekk ci nekk ci nekk Sëriñ Fallu te it moom mu ngeme ay ay ay responsable dégg nga sëñ Moussa Ka nee na euh, ballu bann nu juumun bi diw sëfut weer sëriñ faddilu mooy weer wi leen di jox leel al fadlu mislun fala taxiisu ximaaran bi jawaalin fa saara iisu na ngeen seere ne fekk jàngu siin ba seriñ faddilu lay def sëriñ Tuuba nee na bu leen jàppee mbaami ngonk bu leen ko dendalee naari góor nee na ndax da ngeen di dendale sëñ Fallou kenn di ko gam-gamle kenn egg na ci loolu xam ne lu nekk eh, wax nañ ko wax nañ ko Cheikh Abdoul te melokaan wu rëy woowu mu amoon jagle woon ko ci diggante ak borom moo taxoon mu nekk koo xam ne daal lépp lu mës a ñaan borom suñu borom nangul ko ko ba léegi ci jikkoom mel na ni ku neexoon deret moom sëriñ Fallou waaw sëñ Fallou dafa dafa yaatu woon nekk ku xajoo ñëpp loolu dafa feeñ ci bépp roxam nekkoon ku diggu doomu maanaam nekkoon ku torox loolu boppam nekkoon koo xam ne ku nooy ak wet la nekkoon koo xam ne dégg nga way ko nen ko xun mun faqiiru maanaam way ñàkk yëpp yaay seenum saq maanaam sëñ Fallou moo nekkoon bàyyi ñëpp xajoo woon ñëpp maanaam fu waay ma sa jógee daana wax ne maa xajoo seeni i bang bang moom Serigne Fallou am na kilifa gu ko ma gu ko Serigne Fallou ma sax na ko gane si ma mu ne ko man Mbàkke ganuk sën maanaam dama bari ay taq-taq Serigne Fallou na ko may ëttub géej hmm. boo ñëwee lu diis diig ah. loo woyof na tong ci kaw bu dus ñëwee na ko tonnet maanaam xajoo naa seen i ñaawteef seeni seen bon bon lu ñëw man naa ko supporter xajoo naa ko hmm. nekkoon koo xam ne mës sa gëdd kenn mës sa jànni kenn mës sa génne kenn hmm. mës sa kenn mës sa mere ken mës sa toroxal kenn mës sa gàntal kenn ñëpp ñëpp la xaajoo woon moom Cheikh Ahmadul Fadal yoroon makaarimul axlaax te li gën a rafet ci jikko mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na baax dëgg mooy tax foo man zalamak wa tuusilu man xataaak wa tuxti mooy ku la tooñ nga baal ko sëñ Fallu mës sa fayantoo kenn sëñ ko mës a tooñ ci sëñ Fallu gis ku dem def sa engagement bu rëy tudd ci sëñ Fallu mu taxaw lijjanti la ba defal la intervention te loolu ak tooña nga ca woon te loolu yu baree bari yu dul jeex ba ca toppit mooy koko ko jog mu jokk la moo daan xëcc ñëpp ñod di ñëpp xajoo woon ñëpp waaye ba ca toppit mooy képp koo xam ne yow yéene woo ko sax moom lu am dana la dana la ca jox warmaaloon ñëpp waggaroon ñëpp taxawoon ñëpp moo tax tey ñëpp dawoon jëm si ci moom ko waxu ñaanal maam ñii naan ko bàyyi kenn ku nekk fatte sa bopp ngir Cheikh Mamadou Fadal mu nekkoon koo xam ne it ab muñkat la woon moom Serigne Fallou ndax jamono neexutoon te bu toon neex waaye mu nekkoon ku muñ nekkoon ku du jàmbat nekkoon ku gore moom Serigne Fallou waaye bokk ci jikko yee ca gën a réyoon nekkoon murid sadiq jeex takk ci bëgg Serigne Touba ba egg ci di wax ne xubbi lahu dëxra yooyu ni al ubbi siwa maanaam bëgg naa Serigne man Mouhamadul Fadal ba bëggatuma dara lu may moo nekk sama biir xol yasdaadu fi kulli xiinin waxtu wu ne fraction seconde bu nekk bëgg gi day dolli ko man Mouhamadul Fadal ba yegg ci wax ne tuur ak rongooñ ñu ne lu tax ngay jooy nga ne bëgg Serigne Touba nee na farata la saf ko du ma waxin li xubbil xadiimi faradan araahu jikko yu rafet sëñ Fallou xajoo woon na ñëpp doon ko xam danaan dimbale ku ne waaw fees dell ñi ëpp xam-xam xam nañ ne moo leen jommaloon waaw xam nga sëñ fallu moom ku masa doon ci adduna boo masaa ñëw ci moom xam-xam bi lu mu ba loo bari bari xam-xam boo ñëwee mu wedem lool hmm. ndax moo rawoon ñëpp dafa jàng ba ne ar fees dell ak xam-xam jël lépp teg wane sëñ Touba nëbb nëbb boppam jëndee ko ak teel bi nga xam ne aw yoonu làmp de muridun saadiq sëy ci Serigne Touba ba mel ni suukar su tab bi am ndox naat ba mel ni ab dër loolu loolu waykat ba mu koy wedee ne ko misaalum Cheikh Ibrahima Fall xoola jikko a rafet tax xoola ñaari exemple yi dafa wax ne ñaar rek lay roy waaw muñuk suuf taalibeeg Baay Cheikh Ibra hmm. suuf booy gas du wax loo koy mën a defit it dana dégg Sëñ Fallu nee na moom lay roy xoola ba egg ci boobu dimension baax maanaam roy suuf ci muñ waaye roy taalibeeg Cheikh Ibra Fall waaw nga xam ne suuf moom du jàmbat loo ko mën a defit suuf lépp ci kaw suuf la tege mm-hmm. suuf na cell loolu mooy wanee ne xajoo gim xajoo woon ñëpp moom Cheikh Amadou Fadal mm-hmm. loolu taxoon na tey mboolem ëtti diine yi fu nekk sëñ Fall dafa daan dem mm-hmm. boo gisee tey turandoo yu bari yeeg ak ñi muy tuddee fu mu ji tey dem feneen mag ñi toppoon Serigne Touba ku nekk mu di la bind rafet jikko moo tax ah, xoolal maam borom Sam mi jumaay Mbàkke ji Mbàkke xewar ji moo ko tabax ba mu ko defee rek mu ne ku ku nekk war ngaa wutal sa Serigne toolub àllarba waaye ginaaw nag mënumaa wut toolu àllarba naa ko defal jàkka ji te borom saam kat daal di cay teg ne borom saam ku ko liggéeyal yàlla dana la fay mm-hmm. yonent bi dana la fay sëñ Tuubaa dana la fay te borom saam am nag fay am ci mag ñi ku ne ko te yow it am nga pay mun mm-hmm. ne ko sikkuwut mm-hmm. kon loolu jikko ju rafet la joo xam ne nekkoon na ci Cheikh ah, sëñ Fall bu ñu ko toppee moom euh, jikko ji rafet yi euh, ñu dikk ci màggalu Kazu Rajab nga dikkaatal ñu ci sababu màggalu Kazu Rajab ak naka lañ ko war a màggalee Kazu Rajab sëñ Tuba dafa li may wax toujours li may wax gaañ ñi ne leen sëñ Tuba moom daa dajale lépp fi ne lu baax bu ci julli ñi day am benn ñaar la ci sëñ bi am waaw sëñ Tuba moom pro programme bépp la jël fiñ toll nii boo demee ci koor laylatul xadar gis nga ko bu nga ñëwee ci rajab nga xam ne kazu rajabin loolu mooy al isra wal mi'raj yéegee gi suñu borom yéegee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jógee baytullahi al haram jël ñëw baytul maqdis ci Jérusalem yéeg nag ci sidratul muntaha nga xam ne alxuraan nettali na ko subhaana allazi asra bi abdihi layla min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa bi mooy doxub suuf bi miraaj bi mooy mooy mooy kaw bi kon léegi loolu bi mu amee booy màggal loolu fi yaa ngi màggal yéegug yonente bi ci invitation bu ko suñu borom invité tam andi ne yemul ci màggal Kazu Rajab rek waaye ku ko màggal di nga maale beneen yiw ah waaw yonente julli la jëli woon suñu borom a ko invité ko invitation boo xam ne kenn musu ko am ci yonent yi mu jiite yonent yi yëpp sëñ Tuubaa dégg nga bi muy wax ci muxadamatul am la la anta imaamu rusli xad jaa annahum talaqawka fil asraai wal kullu xad salla nga xam ne ñëpp moo leen jiite taxaw leen jiite leen julli yonent boobu nag guddi googu ci la sëñ Fallu feeñ nga xam daan daan li ñuy wax ne daana wax ne yonent bi dana lay mën a cëpp waaye danaa def nag bu kazu rajab bi ñëwee nii mu xëy dem Daaru Salaam bu demee Daaru Salaam yandu bu fa jógee ñëw kër sëñ Afiya ñang sëñ Afiya moom moom ñoo bokk soxna Awa busu mu def ko ay yoon ay yoon yoon ginnaaw bi nag ah, sëñ Mouhamadul Mamoun ñang laaj nañ ko lu lu ci jublu waaye leeralu leen ko ba yàgg nag mu leeral leen benn bis na leen damaa laaj soxna Awa busu mu ne ma xëytal weer ajjuma ci weeru rajab ci nga feeñ jamono may dem daaru te daaru salaam may dem daaru salaam nag lu ma fa yuuti ngir defa barkeelu tey sant yàlla ci wàcce gi ma wàcce jamono baa mën a liggéeyal Serigne Touba xoolal baa mën a liggéeyal feeñ gi feeñ jamono leen li ci sant yàlla mooy mën a liggéeyal gi mu mën a liggéeyal ñu di ko taxaw di ko def di bis bu ñëw sëñ Fallou ñëwee ñu di ñu di ganale ba yaakaar naa 1970 la ko sëñ Mourou Bousso Dieng jëkk a woote waaw ba Kazu Rajab sëñ Mourou Bousso Dieng moo ko woote naka lañ ko war a màggale sëñ Gana waaw liñ ko war a mooy li wax rek ñu xam ne euh, màggal bisub nit ku baax yi ak nga ne lu ne ngi ci ndax niñ koy màggale mooy jàng alxuraan jàng xasiida ak bernde loolu ak nettali jikko ak melokaani ki ñuy fàttaliku muy Sëriñ Fallu jikko yu rafet yooyu nit ñi mën caa roy loolu mooy mooy mooy mooy màggal gi ak dundal bokk gi ndax bare na ñoo xam ne bis boobu ci la ñuy gisante dem ci seen i bokk saafaante am na ñoo xam ne bis boobu ñiin bokkal Sëñ Fallu ak ñi nga xam ne ay taalibe lañ am na ñuy ñëw di leen seet si ñoom ñuy seetante bis boobu kon bisu daje boo xam ne daje lislaam la lu bis boo xam ne bisu puukare la wala bis la boo xam ne sëñ Fallu moom da ci doon sant boroomam ci feeñ gi mu feeñ waaye bisu yonente bi alayhi salaatu salaam la kon képp ku fi ñëw ak foo koy mën a defee di ko la nga da nga teew lu xam ne bisu sàkku ngëneel la bisu fàkku yiw la yow it da war a sant yàlla ci boole gi la yàlla boole ci ba nga bokk ci ñi mën a taxaw bisu sëriñ Fallu bii te xam na ngëneel la loo xam ne am murit nag day am la ci lépp lu muy def dara bañ la caa jéem a deng-dengee gis nga jëwriñ lépp lu am xel des jëlal sama bopp. Hmm. am xel des. jëlal sama te lu dul alxuraan rek am na wax sa xalaat. ganna lu waral loolu. ah mooy comme da ngay dégg lii nii laa ko gisee bu ci lii laa ko gisee desee rek yow doxeel ni nga nit moom ab jullit moom lenn la sëñ ca discuter mooy yàlla nee na tam wér muy alxuraan yonent bi nee tam wér loolu ab jullit sañu koo deng deng waaye ginnaaw ci xalaat la rek bu ma amee woon ak bu ma sañoon bu ba gisin la mm-hmm. yow li la li nga gis mooy yow ñàkk a màggal yow gisal ne màggal nga war nga gis yow man gis naa màggal man loolu ngay gis mm-hmm. waaw bu ñaax ci taalibe yi taalibe yi war a ci màggal waaw mooy ñu am yitte te jëm ci ak màggal ab murit du dawug dee aynama takunu yudlikum mawtu la kuntum fi burujil mushayyada boo nekkoon ca palais gars yi di la garder pomp ko benn microbe néew fa. lu tax nga wax loolu fii daa mag dee. damay wax ne ab murit xam nga nit ñi dañoo mën a gàllankoor. te mën a yàqate te mën a soboote. da ngaa jàpp ne daa am lu ñuy. yooyu dama damay wax ne xam nga. xam nga buñ demee ba am ngemee am fitu naan ay sëñ bi daa war a jël responsabilité am ak nangam ak nangam yooyu yooyu buñ ko dee wax xam nga xam nga loolu lu ko jar ci àdduna man gisuma ko ah, sëñ bi moom bu teree daje daje nit ñi du tax du tee du te nit ñi dee moom te dee ci nekk ci wut lu baax xanaa moo gën dee ci mooy nit ñi dee ci auberge yi nag te nekk faak soxna si jàmbur wala ñu nekk faak lu ñu fi war te nekk mm-hmm. ah? ah ñi jug di def lu bon di naan sàngara ba dee ca mm-hmm. tam naqari yàlla nag kon daal waxi teri màggal moom yooyu du ay maanaam mooy mooy luñ koy tere mm-hmm. luñ koy tere léegi am na ñu di am fi ne bi fa mu tàmbalee xamuñu màggal feebar bi fa mu tàmbalee xamuñu màggal xamuñu yàlla. kon looy wax ñi nga xam ne dañuy tiit naan màggalu Kazu Rajab day tombé coronavirus parce que ñi ngi naan Touba am na fi. waaw man daal man daal li ma gëm mooy ñaanalu ma kenn tawat te it alwiqaayatu xayru min al-ilaaja maanaam maanaam fegu moo gën faju luñ digle daal te docteur lii la ko ci mën a faju ci fegu nañ ko def waaye dawug dee ba bañ a màggal si moom léegi yow bu fekkee ne yow yàlla daa programmé ci tawat ji ci nga war a dee boo màggal si da nga ciy dee. ndax yàlla bi mu koy wàccee yow programme na la balaa la buy ñëw ci ngay dee yow fi ne yàlla waajal na ñi ci war a dee ñii ci sibur la ñuy dee ñii ci ngas la ñuy dee ñii ci accident la dee ah ñii dañ leen di jam ñii dañ leen fekk soxna jàmbur rey leen ñii dañuy jékki-jékki na dal ku ak la lay rey mais ki yàlla programme wut na tawat ji moo ko rey moom mënoo ko caa rey maanaam bu newoon ci seen biir di lëmbee du ca dee ki ci yàlla programme boo laqatu woon doo nuyoo doo gisub jant doo gis weerit maanaam fa micro bay aw ba dugg fi yow doo ko yëg ba rey la moytandiku ngi nag war na waaye bu ñu jékki-jékki rek cité ay ay ay màggal ak même même même ñenn ñi bëgg a jël ay engagement na dañoo war a wax na sëñ bi ñaan xam nga tali bi li ñu war na sëñ bi ñaan sëñ bi juboo na yàlla na ñaan na sëñ bi ñaan moo léegi kon sëñ bi na tere màggale mooy sëñ mënu ci dara ah anta rahimu samadu rahmanu al muminu al muhayminu al bala ikfil bala wa jumlatal waba wa suq ila al a'da'i kulla da anta rahimu samadu rahman al muminu al naanu fil balaa wa jumlatal wabaa'i wa suuq ilal aadaay kula daa'i ñaan yàlla daal waan si shifaayika makkaana daa'i kenn ku nekk sañ na koo ñaan waaye nit mënta daw ak dee aynama takunu yudrikumul mawtu wala kuntu fi burujin mushayyada dégg nga te ñu xam ne gis nga bokk yi baaxul waaw baaxul waaw saboote baaxul xam nga saboote mooy gis nga nii sëñ Tuubaa mel ñoñom mel ni nit ñi bëggee ko ni lu sëñ Tuubaa liggéey la ba yàlla fayee ko billaahi ay quelque ni ki xalaat ak i pexe ki tic tac taxul nit ñi découragé ci sëñ Tuubaa barke Cheikhul Khadim ndax nun sunu alal sunu bakkan sunu lépp lañ ko jox sëñ Tuubaa te ñaareel ba sëñ bi la soob mu boole ñu ci programme am déedéet déedéet loolu loolu loolu mënoo ko dégg nga loolu nag bu amee jëmmi taalibe bu nekk boo waree moytandiku silvissé daal na nga ko def bu dee nee na da ngaa war di raxasu del raxasu bu dee da ngaa war a moytandiku del moytandiku li ngay lekk na koy xool ne loolu lépp moom la waaye nag nañ bàyyi nangam xam nga balaa dang koy daw ngir balaa yi waaye nag mënoo daw balaa ngir balaa bu yàlla programme ne lii mbas la moo xam ne Gana Messere ci tawat ju ñuy wax nangam deux mille vingt ci lay dee maanaam kenn mënta tee ba Gana Messere dee ci deux du dee ci deux mille vingt jooju. Gana gëm nga coronavirus gëm nga. ko xamul sax xam man man lu ma lu ma man moom. non ma ko yàlla xam na xaw ma. la tàmbalee réewum xaw ma Chine it man xaw ma ko man Touba laa xam ak yeneen dëkk yeeg yooyu xaw ma jooju tawat yàlla xam na ko xaw ma ko xaw ma ko te ñaanalu ma ko kenn tey it war a def comme dal ñu xam ne diw doomi diwa quartier sàngam la dëkk ci Touba béréb sàngam la doon liggéeyi di way soxnaam ñu xam ko bu baax waaye ñun jékki-jékki naan dara xew na dëkk sàngam te mënoo dox ba daje ku ne kooku sa mbokk la woon kooku ku mu doon duñ wax ñim doon ñu xam ko dañuy gën a dimbale bu fekkee am na nu mooy tandiku ko waaye jékki-jékki rek te boon nañ fi ne am na daarul moxti ba yàgg lu ñu waxalaat seen bopp amul ah xam nga Sénégal seen problème mooy lu am. est-ce que amul euh, ñeneen yuriduuna an yutfiu nuur allah bi afwahihim ah. jaarale ci jàngoro ji. waaw xam nga xam nga tey. parce que bu ñu demee ba naan màkk jeeg umra gee yu mel noonu. xam nga loolu Trump seen waa ji wax na ko lu leer moom Iblis représentant Iblis bu mag boobu. di Trump waaw. représentant Iblis mooy Donald Trump ku bon la te bañ lislaam dégg nga moom dafa wax ne. dafa wax ne. ajug màkk gi da koo tiital. te seen yonent bee leen digaloon ñu ñëw di aj si ak di umra daan na lii nag maanaam pexe muñ mën a def ba mu dakk ndax tiital na ko léegi ku ne bu aj maka am léegi kon dàq nga xajjul baytillahi alxaram li man istata'a ilayhi sabila kon saa yu ne bu aj am rek mm, dindi nañ ponkub lislaam kon léegi tere nañ julli tere nañ koor tere nañ nat asaka loolu moom xaw ma dana am xaw ma daay problème bu jullit ñee kon ñoom ñoom moom nañ xam ne kon léegi seen pas-pas moom problème baa ngi noonu léegi nag noonu mu mel la amay représentant am na ñoo xam ne déroulement bii di am ci doxu ni sëñ Tuubaa neexu leen barki dee ma lañ jógee Poroxaan riir mi mel ni ay ñu ñëw ñuy waajal Kazu Rajab bi riir mi mel ni ay bu noppee yaa ngi naan Daarul Muxti buñ tabbee yaa ngi tàbbi ci koor gi maanaam jëmmi sëñ Tuubaa yëngatu sëñ Tuubaa moo jaaxal adduna bi maanaam comité murid gii maanaam déroulement bi am doxiin wi mu am ci pas-pas ak volontaire gi nit am daw jëm ci Serigne Touba loolu moo tëj seen bopp yi léegi xam nga bàyyi leen sëñ Tuubaa boo ko waxee duñ ko bàyyi sëñ Tuubaa jëru topp boo ko waxee yow la ñuy wër pour nuñ la lijjantee waaye mënoo noo tax bàyyi bàyyi bàyyi sëñ Tuubaa léegi nag ñu bëgg na léegi nañ seet léegi bu ne ab dara xew na man lu ne lañ daan wax Ebola amoon na xoolal Cheikh Sidi Moutar bi ne fi Ebola lu Cheikh Sidi Moutar wax dane doo leen ko gis looloo gënoon a garaaw mu riir te ab jullit dafa war a rafet njort ab jullit rafet njort gis nga yàlla bu wàccee balaa wàcc ab nattu ku mën a ku ku yàlla tudd na nattu bi dana da sa kaw yàlla dana teg nattu bi sa kaw bu fekkee am na it ñi nga xam ne ñoo yor wàll woowu ñoom it duñ bàyyi ñu ko yurut di wër mbedd yi yeeg dëkk yi di terere yi am réew buñ ko tànnee buñ ne sécurité bu ne am na lu xew ña yor sécurité dañoo war a jóg dem ca gox boobu xool ko contrôler la loola mais doo nekk ba ñu rey nit ñi nga jóge fële pip pip pip pip pip ñuy corné ko wëri koñ di baaree mbedd médecin euh, nga loolu médecin après la mort mm. amul sens tawat am na ñi yor wàllu wér gi yaram kenn mënta xëccoo ak ñoom ndax man feebar bu ma xamul te xaw nu muy dalee mënu ma caa wax mm. waaye ñoom ñoo war a dimbale mm. bu nekkaa sàngam am na Tuuba automatiquement rek war nañoo ñëw ñoom déplacé too ko xool ko bu dee dëgg ñu ne am na moytandiku bu dee zone bu ñu war a baare ñu baare ko bu dee lu ñu war a régler ñu régler ko ubbi ci boppi nit ñi parce que séntu tawat ji ñëwagul dong nga yàpp nanal daal moo ah, kon buñ ko defut mais Sénégal ñoom la yàlla nattoo lu ne am nañ ca commentaire wax naa ko ba tey fi ne bu football bi ñëwee ñëpp ay coach la ñuy doon match bi waruñoo engagé nii di wërta dugale nii di wërta dóor penalty waruñoo classé diw bu làmb ji ñëwee nekk ñëpp nekk ay manager diw wërta def nangam nangam Sénégal la yàlla bindee lu jóg ñu coow ca fi ne lii liñ ko yanoo sax Italie gee gën a garaawle ay camp ay cas Italie yanoo woon ko noonu waaye ñun fi ne dox di sëqat képp boo nga defee wala nga soj ñu ne tur bi sax mënuñu ko wax coronavirus moom am na ñoo xam ne winis sax lu ne la ñuy wax xamuñu sax nu mu tudd waaw kon ma waaw kon maa ngi leen di gërëm nañu rafet njort te màggal si te ñaan sëñ Fallu te mucc ñëw ci jàmm dellu ci jàmm kum dal yàlla na nga wér kum dalul yàlla bu mu la dal ci barke Cheikh Amadou Bamba ab julli day rafet njort jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. koy sant bu baax eh, di ko gërëm Serigne Gana Messere Mokhtar tey moom la àndaloon ci waxtaan bi waxtaanee Serigne Fallou xam ngeen ne Serigne Fallou nag buñ ci duggee yaatu na lool eh, ñu waxtaanee lenn ci moom waxtaan waxtaanee tamit eh, màggalu ko Kazu Rajab ak actualité bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen ngi doon topp Rafa TV àndoon ak Serigne Mourtada Cheikhouna ak sunu caméraman yëpp rek ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah ci yeneen jotaay ñu ànd ceeg yéen ci Rafa TV